alors euh, sas la sas la comme ni mu ko waxee da ngeen monsieur Nawe Thiam euh, li mu wax mais euh, ci jeunesse boobu nga wax euh, récemment gis nañ ne euh, Cheikh Oumar Anne il s'est rendu à la commune de Ndioum euh, jeunesse bi accueillir ko bu baax y avait une foule immense ci ginnaawam mais est-ce que tu n'as pas un peu peur que vraiment boo demee Cheikh Oumar Anne battre la yow Nawel waaw xam nga kuy dem si combat moom Euh, bu dee ni da ngay dugg si langue politique wala combat ngay ragal wala ngay am yenn sikki sekk yi vraiment mieux vaut que nga taxaw man dans ma vie gisuma li may ragal wala li may tiitaloo parce que lii man maa leen woon bunt bi man tey wax naa la tey laa am un mois bi nga xamante ni def naa euh, une assemblée générale chez mois à Ndioum yóbbuwaale fii benn télévision bi nga xamante ni yóbbu leen foofu nekk ak ñoom une semaine di def ay reportage def ay micro territoire waxtaan gis population de Ndioum gis ni ñu dundee gis jafe-jafe yi gis lépp donc euh, sama jaar-jaar la ñu jaar comme def naa ko le huit sept le 8 euh, euh, septembre passé ñoom tamit loolu moo tax ñu def seen 2 octobre passé donc damaa def li may def ba pare mit une assemblée générale d'investiture ba pare ñoom ñu soog a def un mois après ñu soog a def seen kii donc gisuma si tiitaay et puis ñoom lu ñu def nii Euh, bu nekkoon ni li génnoon foofu ful boobu yëpp waa njum la dinaa xaw a taxawaat tuuti xoolaat sama bopp mais euh, xam nañu la moitié ñi nekkoon foofu yëpp nekkuñu waa njum donc et puis man comme waa njum ñoo ma ñoo ma bëgg a fal donc j'ai pas besoin de may ji may indi nit yu département wala au niveau national donc loo ma tax man li ma amoon foofu yëpp uniquement c'était waa njum waa donc moom lu mu indi woon foofu moitié bi yëpp c'est des gens de nga xamante ni au niveau de en dehors de Ndioum donc euh, et c'est comme ça parce que comme euh, il a les moyens et peut-être loolu moo tax mu am loolu c'est ça